média Media mbokki internet yi da leen ak jàmm ci lectualité actualité du net ñu daal di ci ak yéen ci information yi daal di koy tàmbali ak réaction bi nga xam ne kii di Nogaye Kara daal na koy amal gannaaw ba mu yëgee nii kii di Mama Vulgaire bi nga xam ne xaritam la ñoom ñaax dañu doon jàppante ay fan yi ñu génn en plein live dafa mujjee daal di avorté ëmbam bi nga xam ne tolloon na ca deux mois Nogaye nag daal dinay jéggalu ci saaga yi nga xam ne mu ngi ko doon yëkkati ci live bi nga xam ne mu ngi ko doon def gannaaw boobu lay altercation ci biir explication yi nag euh, daal dina ci boole ni moom keroog bi nga xamee ne moo ngi wax nag nekku ki di maman vulgaire la sampaloon live ndax jiwu ko li ni mel maman vulgaire moo jukk euh, di ko dóor sax mais moom ba tey yëkkatiwut loxoom ndax ngorom mayu ko ko mais nag euh, nee na ñi nga xam ne ay fansam la ñu doon def ay live wala doon yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale en son encontre nee na moom ñooñee la doon tontu moo taxoon mu daal di def euh, boobulee live mais nag euh, moo ngi tuub di jégalu bu baax ndax moom mi di Nogaye Kara dem na ba tollu fa nga xam ne Sénégal ñëpp ko xam ñëpp ko nawloo suy wax sax ay nit dañuy yëkkati ay kàddoom di ko dagg naan dañu koy challenge kon nag vraiment daal dina koy tuub bu baax ki nga xam ne moo nekk Maman Vulgaire nag depuis altercation boobee ba tey kenn gisu ko mu daal di amal ab sortie waxti wala mu daal di yëy yàbbi ci li nga xam ne daal di nay euh, similaire euh, ca boobu boobule altercation ba nga xam ne doxoon na ca digganteem ak kii di Nogaye Kara ñu daal di ñëw ak yéen euh, ci extrait bi nga xam ne daal di nañu koy amee ca boobule live. Mame Ndiaye Savon am na yoo xam ne du ma ko def si biir live su nekkoon Mame Ndiaye Savon moo ñëw lu muy réew réew lu muy bëri bëri wax day day dagg micro wala mu dagg live bi daal ñëw daal di nuyu koy ñëw na ko yaay booy su loo nekk waaye nga toog fi nga toog. lépp nga lépp nga bu ko jàppee sa live lépp nga jàpp bu ko jàppee sa live lépp live live xam pour lan la pour jaay pour kaf ak reetaan waaye nekkul pour wanewu nekkul pour tiit nekkul pour tiita nekkul pour wanewu nekkul pour tiita ba sama yaay dem dama ne ko wax ko ci boppam maa ngi dem lan la waroon def jug gu gunge sama yaay ba si buntu bi yam fa lu mu koy jox mu jox ko ko waaye lu mu koy def lépp mu toog si biir laaj bi def ko si biir laaj bu la toog def ko ndax lan lu ma war a defaral di toog loo loo defaral nit naan maa la defaral maa la defaral lii loo ma defaral sama sama sama loo ma defaral benn sans defaral naa la ko sa sa sa ko kenn fekkewu ko dama sonn si yow dama sonn si yow su ma yàlla fayee sama xol damay am lu baax damay bàyyi sama liggéey nit damay woo xaalis yëpp ma ne ko diw ma ne ko mañ na ko foo leen ma mun tëgg ay feefa damay yàqam di dagg sama lay ñëw palaasam ndax bëgg ko te yàlla rek a tax ma ànd ak moom bëgg ko te yàlla rek a tax divorce euh, daal di mujjee am euh, ca diggante Clara Dora Gueye ak Racky Aïdara am na kenn ci ñoom ñàkk nga xam ne finalement mujjee nañu laa libéré en tout cas loolee la ñu mën a wax bu ñu sukkandikoo ci post yi nga xam ne gis nañu ne fan yi kii di ay dara moo ngi koy def muy lëmbee internet bi moom nag euh, après anniversaire wu Clara bi la tàmbali di fësal naan désormais nekkatul ñaareel tante mais moom moo nekk first lady di awa yaay mais nag du nekk ka nga xam ne dafay fermer les portes nee na nag képp ka nga xam ne daal borom këram pare na na ngir daal di lay mën a takk nga ñëw yéen ñaar ngeen wujje moom loolee du nekk la nga xam ne daf koy daal di bañ kii di Clara nag depuis boobu ba tey nit ñi ñoo ngi xaar mu daal di amal ab réaction mais moom nag ba tey mu ngay wëyal rester zen ci réseau social bi di Snapchat ñëpp xam nañ ne nag moom mi di Clara dafa nekk taalibe Serigne Babacar Sy te waxoon na ay fan ñu génn ne dañoo nekk ci weeru septembre nekk le mois de son anniversaire dina daal di fësal programme bi nga xam ne kii di Mia Guissé dafa mel ni liiru ko gannaaw ba ñu ko gisee ca casino bu Paris bi mu daal di way ne kii di Doro Gueye Clara la nopp waaye euh, kii di gay Gueye ay daxa aussi la nopp finalement nag euh, bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne ñoo ngi koy gis jamono yuñ toll nii mel na ne finalement am na kenn ka nga xam ne daal di ngay euh, dem ñu daal di leen fàttali nag ne ci anniversaire u Clara bi gis nañu ne kii di Doro Gueye pour la deuxième fois daal dina koy affiché ba daal di jëlaale sax benn bague en diamant daal di ko koy jébbal toujours euh, ci euh, information yi nga xam ne mu ngi lëmbee internet bi ñu daal di ñëw ci arrestation bi nga xam ne daal dinañu koy amal ci mbër mii di Ada moom nag euh, daal dinañu koy placé en garde à vue gannaaw ba mu doon xeex ci benn baar ba nga xam ne mu nga nekkee ca côté commissariat bu Médina bi moom kii di Ada Fass nag wax nañu ne li nga xam ne moom la ñu koy toppee moo nekk coup et blessure volontaire il risque d'être présenté au procureur à l'issue de l'enquête am na sax yenn ci ay vidéo am ya nga xam ne kii di Ada ay fan yi ñu génn ñoo ngi gis ne daal lëmbee na internet bi ba ñu bëri naan moom daal dafa war a xoolaat entourage mais aussi comportement bi nga xam ne daf koy amee léeg-léeg daal ne wax naa nekk la nga xam ne dina ko saytuwaat bu baax ki nga xam ne moom moo nekk Aziz Ndiaye moom nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk waa organisation bi di wattu suñu pas-pas dal di nañuy dénoncer soirée mondaine yi nga xam ne mu ngi koy amal euh, ca guddi gàmmu gi foofee ca Touba nee nañu nag kii di Aziz Ndiaye ay at ngi nii li nga xam ne seetlu nañu ko moo nekk dafa nekk di organiser plusieurs euh, festivités ya nga xam ne dafay am foofee ci résidence am ba nekk ci Tiwaawan mais nag dafa nekk la nga xam ne c'est ostentatoire et éloigné de Seydi Hadji Malick Sy rabiyallahu taala anhu maanaam dafa nekk ay soirée nga xam ne laalewul benn yoon ak li nga xam ne moom la ñu diggee ci gàmmu gi nga xam ne moom la ñu ciy jublu mooy daal di sant yàlla mais aussi euh, daal di màggal juddu guddi juddu yonent bi loolee nag euh, daal nay tax ba ñu mettre en garde ki nga xam ne moom moo nekk Aziz Ndiaye ci yooyu les soirées nga xam ne moo ngi koy organiser mu nekk la nga xam ne nag euh, niki ren gis nañu ne ñu bëri daal dinañuy métti du folklore bi nga xam ne daal dinañu ko fay amee jigéen ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñi nga xamee ni ñoo ngi ko doon defee ca ay paccal ak seen yëre yu seere yi nekkul daal ab mbir ma nga xam ne daal dinay laale ak wàllub euh, gàmmu toujours nag euh, ca kër Aziz Ndiaye boobee gis nañu ne kii di oustaz Modou Fall mi nga xam ne moom moo assuré woon ca waxtaan ba gannaaw ba mu mettre en garde kaakat yi nga xam ne dañoo ñëwoon ngir daal di utsi ay defante ca diggante Miss ak kii di Aïcha Rasoul moom nag euh, daal dinay présenté waale soxnaam public bi daal di leen xamal nag ne moom képp ka nga xam ne wax na la nopp na la kudul moom daf lay nax toujours nag eh, ci li nga xam ne daal nañu ko fay nemmeeku moo nekk ni ki nga xam ne actrice bii di Betty Baye Ndiaye jël ko fi ñaareel ay fan yu yàggul dara ak ki nga xam ne moo nekk Aïcha Rassoul ñi nga influenceuse bi ñoom ñaax ñi rek ñoo fa nekkoon les absents les plus présents question yi ni samp nag bëri na ci ana lan moo tax ñëwuñu Betty daal moom daal dina snap teraanga yi nga xam ne daal dina koy jàppale borom këram ak wéyjuuxam bu jigéen bi mais aussi ki nga xam ne moo nekk Aïcha Rassoul ci réseau social bi di Snapchat li nga xam ne gis nañu mu koy def moo nekk bagage yi nga xam ne daf koy jaay euh, moo ngi koy wëyal posté une mauvaise nouvelle euh, daal di xew foofee ca Ziguinchor euh, benn xale bu gox buy wuyo ci turu Paw nekkoon en classe de sixième toll ca fukki at ak juróom-ñaar moom nag moom moo daal di faat benn xaritam buy wuyoo ca turu ca sanne tollu ca fukki at ak juróom benn wax nañ ne nag ñoom ñaar seen jàppante bi nga xam ne amoon nañu ko ba kenn ki daal di mujjee jam moroomam mu ngi laale ak la tenue d'un concurrent gannaaw ba mu ko jamee nag kii di euh, ca Sané moom dañu ko daal di évacuer à l'hôpital malheureusement ci lay mujjee daal di succomber à ses blessures ki nga xam ne moom moo nekk p aw mi nga xam ne moo faat nag wax nañu ne gannaaw ba mu jëfee li ni mel pare dans la maison familiale ngax daal di mën a bañ ay proche kii di CA Sané daal di fajal yëf yi seen bopp gannaaw ba ñu annoncé bi les dram takk dex yi nag ñoom ca la ñu mujjee daal di ñëw récupérer ko daal di koy placer en garde à vue yamuñu ci wax nañu ne aussi yaayam ak sëram dañu doon jot ay menaces de la part des proches de ki nga xam ne rey nañu ko ba tax na ñoom aussi dañu leen mujjee yóbbu ca poste de police ba ngir ñu daal di fay mën a am sécurité ba tey ci mauvaise nouvelle yi foofee ca Touba kër bi nga xam ne gis nañu ne dafa daal di effondré wu daal di li nga xam ne nag daal di na ciy am moo nekk ne na benn xale bu góor ba nga xam ne def cee mujjee daldi ñàkk ba kenam vidéo bi nag daal di nay nekk la nga xam ni viral na lool ci internet bi mais foofee nag kenn wanewul ki nga xam ne moo ci ñàkk ba kenam daal ñu ngi ko yuuxu rek turam finalement nag waa Seneweb xamle nañu ne moom moomee nga xam ne moo ci mujjee ñàkk ba kenam néewam por pompier yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee ca Touba daal dinañu koy mujjee récupérer ba daal di koy yóbbu ca morgue hôpital ba ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla yërëm te xaare leen aljanaay si yal na leen borom bi jéggal gis nañu ne sax mairie Touba bi jamono yuñ toll nii ndoxu taw bi daal na koy prendre d'assaut mu nekk nag ndox bu bari ba nga xam ne daal dina fay wàcc foofee ca Touba askan wi sonn nañu lool ñu ngi yuuxu sax wàllu ngir nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñu daal di ñëw uh, wàllu si leen ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi déglu bi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro d' actualité people jërë ngeen jëf.